alayhi wa sallam da koo bind signé ko waaye engagement bi it sëñ Fallou jël ci liggéeyal yàlla jaare ko ci sëñ Touba da koo bind signé ko te nit loo xamante ni bind ko ko signé ko mënatoo ca dellu ginnaaw moo tax sëñ Fallou waxtu wu ne boo ko gisee taalibeb sëñ Touba rek ngay gis mooy ca colin wa ca waxin wa ca jëfin wa ak ca nekkin wa beneen bi ci topp itam nekk citoyen sam réew wares na koo mën a jàng ci sëñ Fallou mooy citoyen mooy du lor am réewam du lor niti réewam sëñ Fallou musta lor réew mi mu saloon les réewam amu ci itoon xejj ak seen day jël doomu aadama jàppe ko ci ni ko suñ borom bindee te teral ko ci wala xadd karam naa ba ne aadama moo tax doomu aadama yi jullit bi ak yéefar bi ak lépp yam ci sëñ fàllu ci njariñul sëñ fàllu waaye nag boo dellusiwaatee nag ci biir diine lislaam nag xam ne jullit yi am nañ xaas ci sëñ Fallou te loolu da leen ko laleen ko may mooy bokk gi ñu bokk diine lislaam loolu mooy tax nga daan dégg sëñ Fallou yéefar yeeg ñi ñiritu jullit ñëpp maase àndandoo kenn ku nekk am cofeel ci sëñ Fallou ci sab xol loolu la ko waral mooy jikko ja jikko ja moo ko may loolu ci digganteem ak doomu aadama yi boo dee si ci biir diine lislaam ñoom ñëpp nangu sëñ Fallou doon seen kilifa la ko ko may mooy relation bi nga xamante ne bi war na ci innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum sëñ Fallou lu ko war ci diggam ak kërug diine gu mën a doon matale na lépp te mustaloor diine benn yoon boo dee waatee ci biir tarixa ba itam ñi sëñ Tuubaa gërëmoon seeni maam ñu àndoon ak sëñ Touba it mu am ngërëmul sëñ Touba gis ne buntu kër yëpp ñoo yem ci kër sëñ Fallou boo duggee danga fekk doomi sëñ Touba yi mu tudd leen ay doomam boo fi duggee da nga fekk seexi sëñ yi nga xam ne sëñ Touba gërëm na leen sëñ Fallou tudd leen ay doomam da nga fekk itam ñi sëñ Touba bokkaloon wenn wenn askan sëñ Touba sëñ Fallou tudd leen ay doomam ba àgg ci ñi nga xam ne sax diiney lislaam gërëm na leen sëñ Fallou tudd leen doomam loolu bokk na ci kii toog tey jii nga xam ne li ko boole ak aw turandoom wut lislaam kon moo lay xamal ne jullit xaqan mooy Cheikh Mamadou Fadal murid saadix mooy Cheikh Mamadou Fadal waaye citoyen boo xamee mat na li mu doon mooy Cheikh Mamadou Fadal sëñ Axma nag nee na mi ngi leen di sant ndax buntu kër sëñ Fallu bu ngeen taxawoon yem fa yéen ñëpp télévision yëpp yendu foofa ba ngoon jot ñu dem ñibbi sëñ Axma nee na jàpp na ne li mu bëggoon ci a gi lépp def ngeen ko kon nag wër gii ngeen di wër ci buntu kër yi doomi sëñ Fall yi ba ak si moom fekk ci mbooreem jullit yëpp fu ab jullit mën a ne ci àdduna bi tey bàyyi xel bisub sëñ Fallou bi sëriñ Axma nee na mi ngi yëkkati kàddu cant goo xamante ne bi ginnaaw moom lañ dénkoon liggéeyu màggal gi mu ànd ko ak sët yi ànd ko ak taalibe yi cant gi ci moom la war a bàyyi ko ginnaaw bu jógee ci sëriñ bi kon mi ngi ciy profité di ko jottali jullit yëpp yëg ne kenn ku ne sa taxawaay ak na ci bis bi di sant taalibe yi sëriñ Tuubaa yëpp ak seexe sëriñ Tuubaa yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Abdoul Aziz salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw bi ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent sant Serigne Touba baax a baax di ñaanal Cheikh mu Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba naal yi mu naa la lislaam naa la ko maam ju baax je mu yeggale ko ak sago ànd ko ak mboolem taalibu yëpp ci ñaanal Cheikh Serigne Abo Mbacke albaraka moom mi nga xam ne mooy xalifatu Cheikh Mahamadul Fadal suñu borom sàmm ko ci aar ko may ko fanu gudd loolu bu ànd ak wér ko mboolem yéene ak naal yi nga xam ne am na ko ci kër Cheikh Mahamadul Fadal mu yeggale ko ànd ko ak njabootu Cheikh Mahamadul Fadal Mbàkke gépp góor ak jigéen mag ak ndaw di sant di beral cant ak ngërëm suñu wayjur wi nga xam ne moom la ñu nekk ci kanam ci waxtaan wi ñu koy def ci kanam muy Cheikh Mahamadul Badawi yàlla sàmm ko ci aar ko ba yaakaar ak yéene yi nga xam ne bokk yi am nañ ko moom yëpp yàlla bu ci yaakaar tas ci barkeb Sëriñ Tuba eh, li ñuy wax ci Cheikh Mouhamadul Fadel nag boobaag léegi dafay mel ni rek eh, dana mën a doon yóbbal ren ba déwén mu mel ni rek samay kàddu moom dama koy jooyal ci jëmm ju nga xam ne moom la ñu nekk ci kanamam muy Cheikh Mouhamadul Badawi muy jëmm joo xam ne day royukaay ci bépp fànn modèle ci ku bëgg am kilifa ak ku bëgg a sa kilifa ndax moom yàlla daf ko boole ci ñi nga xam ne am kilifa da leen a gënal doon kilifa ak kenn ku nekk xam na dayoom ci kër Serigne Touba dayoom ci kër Cheikh Mouhamadul Fadal dayoom ci lislaam waaye ànd loolu lépp nag moom dafa jaay loolu lépp jënde ko ak taalube kon moom dafa bokk ci ñi nga xam ne am kilifa da leen a doonal da leen a gën a doon kilifa dafa am benn xadis xadiis la wala muy wax mag ju baax mu ne inna lillahi xalqan xalaqahum li qadaa'i xawaaiji naas moom mi dafa bokk ci jëmm yooyu ndax dañuy wax ne am na sunu borom mbindaafan yoo xam daf leen bind te dara taxul mu bind leen lu dul seen yitte ak seen ajo yëpp dañ koo jooyal jëmale ko di di faj ajo doomu aadama yi moom mi nag dafa bokk ci ñooñ mu nekk sakk ci yoonu mus yoonu lislaam yoonu murit nekk sakk ci lislaam waaye rawatina di sakk ci kër gi nga xam ne ci la nekk muy kër Cheikh Mouhamadul Fadal ñu koy ñaanal yàlla subhaanahu wa yàlla dolli ko sàmm dolli ko aar ba yaakaar ji nga xam ne ay kilifaam am nañ ko ci moom yàlla mottali yéene yooyu ak yaakaar ju yàlla bu yaakaar tas ndax sëriñ Muntaxa di kilifaam dafa jël li nga xam ne moom li mu gën a fonk muy jàngukaay bi nga xam ne mooy jàngukaay bi gën a mag waxuma la ci senegal waaye ci Afrique ci jàngukaay boo xam day jàngal islam jël ko teg ko ci loxaam muy sag ci mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal xaadimu rasul ndax ñëpp xam na xam-xamam ak maanduteem ak yitteem loolu yi nga xam ne moom la ñëpp xam moom la kilifaam googu xam ba dénku ko ko di yaakaar jooju nag ñi ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne lu mu mottali lu ne moo ko mottali yàlla na ko mottali yeggale ko ci ay loxaam mu ànd ko ak wéy juróom Ah, dañuy wax ne moom day xel war naa mën a dal ci moom ñun ñëpp nag dañoo war a àndandoo di ko ñaanal yàlla sàmm ko aar ko ndax dafa nekk koo xam ne nii ak yàggamfi fi waxuma la kër Cheikh Mouhamadul Fadal waxuma la yoonu murit waaye yàggam fi njariñal lislaam la ba tax na waxuma la yoonu murit waxuma la waa kër Cheikh Mouhamadul Fadal waaye jullit yëpp dañoo war a àndandoo di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd wér ndax bu fi yàggee non seulement dina nekk njariñu l'islam mais dina nekk njariñal yoonu murit mais aussi dina nekk njëriñal waa kër Cheikh Mouhamadul Fadal ndax ñi ngi ciy am yaakaar nag ndax wa amma maa yanfa'u nas fa yamkusu fil ardi loolu yi moom ñëpp xam na ne moom léppam yitteem soxlaam yëpp njëriñal jullit yi la rawatina waa rawatina yoonu murit kon daal sëriñ bi ñu ngi daaneel kàddu yi rek. fi ñu ko tàmbali woon fi lañ koy daanee la di dékk suñuy loxo subhaanahu wa ndax moo ne allahu yaxdabul abda isaa lam yasalahu kon nag ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala ngir ñu mucc ci am merab ñu ngi koy yalwaan di ko dénk mu yàggal la fi yàggal la ci sa kanam wéy jur yi yàggal fi Cheikh Mouhamadul Muntaxa nga yàgg ci kannaam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala